ala koso bele ba sutoro wolto tenten programme be wa odo be don nakkorda ko be ma jibe ko nyalon ko wolle be keri wa wa wa ano wa ne ka Yankuba. yàlla daf koy des yàlla daf koy indiwale ak kursa ak wëñ ak nga xam ne mbootaay bu mu wàccee fii loolu la ñëw mu jël mbootaay boobu bu nga xam ne ñëw na ko ba pare mu jël aduna bi yëpp fas ko foofu boot la mi atol kala atol le bala bete apola bantan kul ya ñu ci bidi na wax baaxa bari gol min na wa ñu ñu do mo gol min ko la ñi ke ko la kabilo ñu do wax na mu loolu la def ci sun kabilo bi ci loolu lañ bu ko feñal fi ngeen xam ya ko ba ya ko mu tabe ya ko ba dafa jàpp doomam ya bari ni ko mu tabe mu jàpp jàppaata mu jàpp sëtam mu jàpp rakam ci jamono bu nga moom su ma fa bu nga dunda magam yooyu tamit ñu dunda اونیا و یش ما ba nga xam ne ba nga mu mujjee Burama kooku xam nga ne Yankuba daf ko joxoon cër dafa taxawul woon feebar yi magam yëpp seetu doon na ñooñu seen doom yi am nañ dara Yankuba lépp la def ñooñu yëpp daf leen taxaw mu defal leen lépp mais ñooñu nekkul ci seen borom Yankuba mi nga xam ne ñu koy wax dara seex mi lu mu wax wallahi ñun xam nañ ne Yankuba dafa wallahi xam nañ ne Yankuba dafa tan ko obita da wajo sen jere ma ko mona ko mo mul tenki bare lu garam nati ko mo mul jay santal nati yéen a ko wax yéen imam yi toog ni yéen a ko wax si alxuraan. a dañ ne kii su defee lu baax. foo de nga sant ko. nga gërëm ko. ñu ne. mbooloo koo nga ragaluloo sa bopp. kon nag yooyu mën a defal sa bopp. ku def ragalul boppam. yaa ngi yàq sa bopp. Yankuba su ma defaree sa bopp. ye duniya bee le dada dafa yankuba silata fannale yankuba ragal na boppa aya min be keerin jam moo xew yankuba la famille suñ njogooti yankuba tol moomooti jam ñun boolon ko nekkulo safo ko man fo ala amul kenn koy la liggéey si aduna faala laakira kono sonalu kenn ay min ke banta lu mu def sebeti mun ka wala naati jam loolu la nit indi fii tigee min faa foye ko amul kenn kuy wax ne bu laatan kan ne am na lu ma dal bo maalu mbake te xamoo lu ma ko def suñ jógee ko ko si président o tentu président Adama Barrow ñu ko gërëm sa tentu ana la cabinet ñu ko ñu ko gërëm moom ministre bi am buura naati namba tentu dana tax ñu ko gërëm atele naata yankuba tambulu jam moom moo jël yankuba suñ boor fii yankuba be sasala waato mi yankuba bu moo feebar ka bo lopitaan o yéena ko suñ lopitaan ko suwo ko yéen ba si kër gi mool siyata wax ñu bari wonnan ba folo ama adama baro mo yankuba juuɓe ñeddiame woni adama baro falawde mopade feŋo fenkela bara ul koɗe fandar bara ala ɓe londingala way yaladi ham yankuba ɓe londi wola yankuba ndi ham adama e min ke yankuba e adama ɗum defal yankuba min kina yankuba e jam ɗum yone fi yankuba min mu familitingal ɗum ɗuga hande ñoy joɓorgue hamde banniyadi a meta jam yankuba soodi se mo yaga fi tarolle ko atitano kata jararo docteur yewa honneɗo ɗem gena fi ɗem baɗi wolie ɗi goɗɗi fura way ɗuga haɓene jonde jubbuntaɗe na dem a wulita wole ñama ɗon le yankuba jogue pleno ñu de jox ko aéroplane loolu la naawee yàlla de mu waroon a dem India ah, mënut a aga India mu aga Turki foofu la wàccee mu oo ambassadeur ah, mu ne ko su na aji feebaraa gede ambassadeur taxaw nga ñu nga gërëm ñu ngi ko sant bu baax a baax sa taxawaay lu nga def gis nañ ko li mu ma yoo xam ne Yankuba moom faada ɗum kadi so taw noon ɗum noon geɗel gotel ɗum ñottawo ɗum noon geɗel so ɗon weso bibi demba teku demba sidi naka suwo kono ja sidi ja yo basi kerdi aka yankuba le muta fa mure yankuba le jafa moy papa sidi lota wo wo biliyato sidi si tahway bo mu lata ba sidi la lodu la jeli sidi gis nay sa tahway bili yankuba sasa bibi mu yankuba fewale ay lo minke tahway mu nga tahaw ko minke am lu nga xam mo nga def ko bili yankuba sedana la te yankuba ñewi sidi la do mu nana mo mo ñewi si ay lo minke tahway bu ko da bari ñu mol wa ñu ñewi wallahi fo ngeen tempo wallahi fo ñu gërem Yankuba waaw du ma fi ñëwee moom mooy Yankuba Bakary Camara mu ngi fi du nee na ko dooma ñii ay nit la doo xam ne soo dañu wax seen mbir su loolu passé mo mo Lamine Baye Yankuba Yankuba mu njëkk dem dem bés bu nekk ma musuma kër waxtu bu nekk. waxtu bu nekk soo ñëwee ko ko. ku nga xam ne tamit ay bota yu ndawam la. ñu ko wóoree Tafa Jaaju. ñu nekk la jéem a ku yokku. ñu nekk ñu nga fi bañkat. ñu fay lu nekk si dëkk bi. waxtu bu nekk ak bu nekk. ñu doon ñu di faral ñu gërëm. ay meyo toppatoo de. mu toppatoo meyo. man fɛn o fɛn soto k'a f'a ye. amul njarul ko. ko n k'a f'a ye ko cɛw ma baara kɛ. cɛw ma jërëjëf. a fɔ bɛ siyaari jɛn de. ko taa i b'a ni bari. meyo taali bɛn suta fana bi. meyo taali bɛn suta moom bi. a fɔ na. dugula tɛ dem. nka lɔn ne k'a fɔ ne n'a tɛ jɛn de ka meyo jure si ɲa jama. n tɛ xam ne ñëw nga fi ay yoon yu bari di sef. ani meyo tema. te te diggante mɛ. ala le wolo. yàlla xam. donc famille nka lɔn ne k'a ta. suñu famille bi xam nañ ko. yoo so saa min bi jee. dégg lu si des. wala bi jee ko. loolu moo fi nekk ne. loolu nga ñu ne soto pour k'a fɔ. ñun ni la ñu pour wax. famille ñi. fabde murundira aprc golle kaa leyɓe mben men fatil mbin minen koko waɗema wa aprc a political party so ni won param pareta so ñooñu pare toon salomɓe min kelan sa ita suɓu ita muru yana moom bakaɓe yana moom ya baɓe problème fengo fana soto janga bisogo soto jande amne bisim dana mboki biso aɓe hayna sirin jaaɗaɗe pour ka diyam ñu may ko moom tamu dalal de ay kaa amun aɓol ngal nayi joɗira ngal nayi bisop yankuba non ko mplpɓe jalle sirif sar fanan haygan jana ka solatale ka fenne fani yankuba tewa sirif sar bogonade yakkaɗe fikaɗo ngal nayi ko nuyu ñëpp. kontaan nañ. am nañ tiis. tani ni bele suno soto tani ni ñaba am tiis tange bele suno soto tange yaba am tiis ba fulani ko ala baraka ni nana wane jërëjëf ambasado baraka ba ambasado jërëjëf ambasado baraka ba ambasado jërëjëf ana ambasado baraka ba ambasado jërëjëf ni nga fen soto ni ban tekala baraka suñu mo bele kaalu lu jërëjëf mu ñëw bàyyi bu na ñëw ko ci sa saay asalaamaaleykum wa rahmatulah. Amadou Niass asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbokk yi ñu ne benn wax waxtu passé na fanweeri mi aɗum waɗ alfanu sotoga men yaron ko wolɓe waadi bolen kuye kumo jagam lan mbiya kilifa no yiyam waji plan a kadi fi kam a mbaali dani la menna kon a nen buga ña amenu ɓe safe num pour ye diyama ñuga ɓe ɓe nanan hen ñoom ñappon ñuwa mba talana ɗo ɗen ko wañi ni moto nan mbaade dula min joge ko si sur ala menu harje ye murnan jan dula be yala ursala nder kum de usman ni kontine diamo ni dolan kafu ale wo kola wa gana non momo fana nata wala ko hada nyawna dukare ila diamo jambata nyawnya so walu dum guda guda guda kana tambi min sabola kum passe nyati min isaje latta menu e diamo jandi mbaade we dina gisa ñun bo ñu wa bala sul wol se keno so pour ye ñun tam ñu wax to pour ñu wax jere jere I bring greetings to everyone. Akawe kafo move komjona. Especially to the representative of the president. Sutu murmuri alo kwenye na the president of Tuwa yala ja. The deputy speaker of the National Assembly. Mwenye alo kasele mtepe speaker di deputy bungoto. The honorable mayor. Honorable mayor. And all the honorable. And the honorable mayor kwa murmuri alo ja. Amba kondo duro kutanila alma. Muya Anur Pulia Loko Barega President Oyamar, Alhaji Mohamed Salari. And I welcome everyone here. The nunca Yala Fanan a man of God, we work with everyone. The moment Kadoko. Muka mo sibon de sito. Whether you are a Christian, whether you are Christian or Latin, whether you are a Muslim, whether that they left Maryani. He walked with Christians. He walked with Muslims. I am here today. Ate bijambi. Testifying. Of his holiness atanisiongele nokuwa kakambia mapokaja akabona ko watu wakaiton pastor noila ka minister okunya ko kumatira anitata tika yala kuma Come. kuma ta ya sata akakuma Come. mumpo wala mnyituko hanila hotelo Come. da mtele babendo I will feed anutame balundila ntele moto dinela yata kata anu kala mutama kone be kantanga famtele wo bile amanke kilinti amanke sinya floti watu watu wale atinda fana isewo soto that anytime we want to invite guest minister ko watu watu na tayo ngamta modu kumandila munya to munya modu ke bondi bantala balkondo kanaja akamukata mwazi londa yangu pakole kalwai pera and i want us to remember anu lafla na hakuna burudi koma we are alaji alaji alaji alaji alaji he a doctor bana fanan doctor wala fanan ay wo makamo sa let us alin kana nyina wo fanan wo mu makamo ni why here today celebrating the bimbi jambe jurano kala balwala that the ex mayor lived melo tambila ay balwo sifa mun kanu jam i will not bake that I want to ask every one of us here. E what would people say about you when you are being celebrated? soma ni jati jang monu nyam tamu na fole tena kuoto ni ye nyim pe sifa solo an mo nyam ta jura when people say you are a good man mo mo ba fole mo mo kendal tiba or you are a bad, a bad man ko ba fole mo jawole tiba today but it

mbeyala ku keɗo dara metula wala fota wo dalilu lati nan teɓe jan woto mbeɗe duwala alma allahu taala yam tu koma alma allahu taala won fanala kota allahu taala sey tanka seytama allahu taala sela ko wulinde sappo mun yala wala ko mayata الله تعالى سفير فيري فنمويا لو كابي خلي رسول Please. حنبي As we are going today, mm, don't forget the family Alin kana jina la dimba ya la imuntu ko. May God bless His Excellency the President. Alma Allahu Taala His Excellency the President ay ala ko selen de santo. May God bless all those who rule over us. Alma Allahu Taala mun ya be alu ko tolen tol Alma Allahu Taala ya la makamon sel. All those who make policies. mon be yalon koy to la ka kon allah allah taala isara gambia ba ko allah taala gambia ba ko tak amen yo am sanin de min kala legi no diina jaton ko ɗo ndiyamuta am no ɓeɗen jiiti diina bo am no wahna fi supreme islamic council anin diina jaton kon ɓe mbeɓe sirida supreme islamic council an jiiti diina yofitere yeb mbaali ɗo ñowdanila ɗum lena ñaan si mosoɗo ɗum kema même minala kam bo supreme islamic council ɗina ɗuga bo supreme islamic council ndiyamu ah, diina ñaton kol ɓe to ya wasi turi jiiti diina yeb même minala ayana akan yata ñaami ɗo si sen tourna ak si ɗi wasi turi jandinguru jandinguru kaytan dalla ko anin signo alpha karaga wañu walen annate kam ɗo am alpha karaga a an ala dimbayal mume mono mo mo ñogo dam ndiyam ani fewo fen nden mbabulu kulola am kolan ko ame am sulo ham ndiyam ɓe yampata lodneyo yankuba koliyenne signoya hako ñoom yen jeegal nayi alhaaji yankuba kolen ndette kamo gina ñatugol alimaka wattoma kam koy wasiya labiñen mola kumo koy dambara dasanila ka doko lamin wax lafi affaire lamin wax lafi affaire lamin mola kumo koy da lamin kola ka dokole lamin kola wax lafi affaire kenamuna koku rakam Mohamed Amin Souane. Mohamed Amin Souane. Imam Boursubi. Imam Boursubi. Cheikh Alhaji Karamba Souane. Madina Souane dinke foro ma. Dafa mel ni Karamba Souane dafa mel tawam la moom. Be ne Cheikh Karamba be Gambia ñami. Ñu ñoo xam Karamba lu mel si biir réew mi. Par mini yow sino fara fara ko Madina. Waaye ñu nga xam ne ñoo xala yoon bi ba dem Madina. Lamin Koli bolla la Lamin Koli si ñooñ la bokk. Lamin Koli bo la ko. Lamin Koli si ñooñ Amu Karamba dinke wol kono dinke foro le. Moom tamit lasi la si taw si karamba ako lamine ko muna laminne ninga fengo fen nyanta dile la nge balala mbolo lo habe wonda la ko nyote ba hanga ko andu ngadi ndingol la dama jox ko suma do ala ma kana ndingol la yalla bu nyal jeri suma do wala tana ta doko la loolu xam na ko kii rakam woto amuta ko samoñi muy tolle samole kon mu ngi mel ni tey bi ñoom ñoo kilifa bi yena ko mo wala ti lamin naata loolu ta lamin ñëw na xalifa tooya la madina suwaale surtout xalifa bi madina suwaale ani madina bee tooya la surtout madina yëpp ani alhaji ibrahima jaabi ak al turi alhaji ibrahima jaabi nga nafta koli kunda kon maa si koli kunda nga nafta man sa kunda ma aga si nguur bi nga nafta gambia bee ma aga si gambia la bi koy na fo kaato ko koy na be ka ke bee kontong lamin na samola di daan jala ñëpp dañuy yokku ba yàlla ñëpp dañuy yokku ba pour gis na waa Madina loolu moo ko fi sax loolu nga laamina kooku rakam jërëjëf Supreme Islamic Council wala kana diyamu Supreme Islamic Council ñoom ñooy jël si fii kaddu Amirul Hajj moo ñooy wax

tooñaa tooñaa sangolem bare kontantale dëgg dëgg dëgg dëgg lii dégg la waaye bég na mi yaatu nan kontante lan moo tax ñu ñëpp ñu bég naa noon ko gambere manke jamfa booni ñun xam nañ ne waa Gambia yéen doo leen oxoka nga ñaali min jeejangi ɓe siiri har kala mi wa xam ne maa leen gis ñu ngi toog fii wonni yankuba lon kabir yankuba ɓe keeri ñooñu ñooy yankuba laa bu yankuba doon dunda ni Yankuba fele tadile so federe Yankuba fatuɗo tay ala belo mantara aɓe position min ɗum a mantara oto bara a beletale be yalon kon kaf ñomale o damma damma kañate sewa e fatu Yankuba fega si place bu nga xam ne moom la nekkoon makama mum amoon nekkatu sa makama boobu waaye andi jamam gi yëg nañ ne Yankuba moo fa nin doon lama si keno yante ke sama compte ni téléphone o la su doon ne ñeneen la mun nañoo jël sa dëkk ekati sa téléphone rek ñu jaalee téléphone bare ya long ko ñeneen kam ñoy na tan waaye ñoom xam nga ñandi mooy andi jàmma ñoom ya bari na seen soxla accident alama ale la hajo jaara yàlla yàlla fajal seen soxla bi lu ngom be si dajanna alama ke yanko bala seeda di bassa mala arjana tey ñu ñëpp dajanna fi yalla ni naka seeda boo xam ne dina yóbbu yanko ba si ajana bu gën a koy si ajana sina muru nga mata ko ndaten tu bakele ñu ñëw dellu waat di gërëm nguur bu baax a baax waasimi ano ke a kalamta ko masakuda mum euh, football tiimolem waxta bu nga xamee ne yéen yëpp ngay yëngal ne nguur dafa mel ni tiimi football mi yaalo ko ayala ayala ayala ayala fenko ñing ayala beso ñing bonda man ko yuka man football no ko xamne simi na gasam moy bu mabum ne football su ko simi du ne ñaka mun football ta mu bari sa lon ko wat le si ta bel la ta dole ke la noto hey na dafa am waxtu bu jot ñu bu ko defal mi be fi la ko ne alon ko karim football fanan hande ato karita ta football la o fanam ko ken way ñu a xamne tay coupé bi na ngeen xam ne kii nii nga xam ne moo fi jógee koo te mu bàyyi affaire football na ngeen mus naa nekk kii kari coupé masa ya kalamta ko yankuba mu do ko lalete han fo ya jara mu ko kende bale nguur gi nañ ne yankuba liggéey kat la mais nga xam ne ñu ngeen jéego yankuba lii lu baax Supreme Islamic Council surtout Supreme Islamic Council kadiya mol toyala surtout ñooñu lay waxee telem man maay buñ toftal si vice Cheikh Issa ak wala mu jël wala na man dara jàng. Cheikh Issa dafa mel ne loo xam dafa xat moo tax agsi wut. ok yow am na dara rek ne. ñu ne Cheikh Issa agsi na. Euh, Supreme Islamic Council kabiri Cheikh Bandi la jamano. Supreme Islamic Council si jamano Cheikh Bandi. ni yaa lon ko leen toon baak wala mi yankuba ti. a si loolu la nekkoon. aye maa koy. mu fa jógee ko daa jikoo lem dafa mel ni jikko la mi sawuntaanoo to mbi fana lo atala ala place to fana te ko ko am demoo taxaw taxaw ñëw si place am bi moom mu ngi toppandoo bari sabo mool bee ko waaye dina wax ñëpp ne yaatar nu ko yankuba mu motoole ti su fekkoon ne yankuba moto la a pantenu bi mu panteñ mool ta fay la fay ne kenn doo bondi yaa foo si moto doo la tey kenn du ko saali dina jël machine bu bees monté ko si machine bi moto boobu mareɗa jikkom mi ko koore mareɗa jikkooji way jikko mo ngam ne moom may jikkoom alala landirolem dama mel ne terali yàlla la ani wala kata moom loolu yàlla loolu la daan demee. ni mu bon di fennum. su fekkee ne luñ doon génnee la. fennum bon la ngaa di doola. ni ko dañ ko doon génneel jox ko keneen. ala wo daa jika kenn doo ñi. ci koom boobu noonu. Gambia no si nafaanoo ni wala. Gambia yi na ngeen jëriñoo loolu. par ala la landiroo leen. lu ñaala tiraanu. fen fen seen doon mburu. amul dara lu ñu boo ko ala daali. di ñaan si bi. boo daa jikoo ñi. na jikoo boobu noonu. mool kaa jay min na. jikko mon ko dereme won maɓe ta kola minna tandiri ɗumanol ko tan yettawe fi yala gon ñaga bosom bobo sisin jota walla sabaro e min ta muñ bugamno noon lanniti jel alamaɓe yo sabaro yallala yala fay sen muñ bo masa kumdala kono to ndiyala min kenu kabiraɓe jeele alamala o kono ɗimoɗola wiyano ka silo walla ɗum lan niti geram tan yankuba waktu muma hannda mumine kon si gurdi yalla ko yala fay jikko yoyino e kuma o kuma fola jam wa ate tambila kaje ko ko kendo ne ah dum pasani wa nani kuba andu mo kendo na fata nani kuba su fako ay mo dole batati amna kelan kum sona katu min na be jambi du ga na yo nan fite mo moy ke fansi ma ko be kenu la tende ma leru ñu yem lay la ñu tata sun bobo na mun nañu mel ni yankuba o toy salu ko yankuba e mi soto ko nga xam ne yankuba lu mu am min tol be lafita su fekk ñu yeb ko ne sa soto dole de ndax ñu yeb ñu yeb mun nañ ko am katu a soto ma ke ko doti way lo am lolu dina xaalis la amaka yin jiko fenkoti ñiñale ti duy na tarata nga mel ni yankuba bare da jiko le jikko beta wo da jiko jikko bobu da jiko fulale be tarata la kili ñaari ne ka bena bela ila o sen price yoyu may ñet ni man ka e mo de da jika kendo jiko bu ba a da jiko ala price le soniata da jika kuro da e mel ni jiko mo dina yomba a price nga xamne mo sama no ba ka da jika ni ba ke kan jiko ba so kala fi woni yeyde nden nde mugal mi sikkis ɓuriya miɓake ka ɗum fom soko def e ke fom maɓole nden nde mugal no ɗum maɓore le kolyata ke fom pindi way mane ngallu ɗum motena ɓeeti peñal samoba ɗumɗele min jeemi yettude kalu kuba alman wurde ɓaale contonnale imam yallena nu yeyeɓamolune sawo contonnale ɗeɓam e jaale dey almaɓe ɓedduwa kala bankoji kayro alama e tiiɗi imam yaare ñaan rewmi nan jamaji gana yokku Si peski pase li? A kanita le de? A, ada, la de? Sifo beje? Sifo am la de? Basor sa mou beje? Basor am la de? Jalindi sa beje? Jalindi am la de? Tonya, tonya, sama mou luka kere nakpa, sa mou luka kere kere? A, jaga de la kere kere, a wajen kere kere kere? Ah, ah, yo nga dinga naton kolla bankero moyle nega tan jiti dinga lu wa yo ko men benta kunna jan tay ligay bu am na mom lañ masas wole mu na parti yo toya surtout sun parti bi amolu tentu ke jay dikaram di santa mol min ya lonko idun ta futo ne ñu nga xamna du dem na fi ay mbir avec avec la kurandi ci jamono bu nga yankuba mu ngi febar ani fo ala ya ke ala naata ata ɓe yala jel ko amanda wola e wursi loolu e mama ma ya fojande se ibrahima diadiou sinno waxna ko ɓe se ibrahima diadiou a moolu ka tariya ka ñina nini le ñeltela fa moolu ka tariya ka fa moolu ka tariya ka fa nini le ñeltela or bare ani moon moo neneye kuuke waaye mbooloo boo na ak yow wol bee yee foro yaakanta ñoom ñëpp day sàmm seen woto wol kono kon si biir loolu ɓe mo fololu men kontonna neɗen yakayuga seerluyo wolem former councilors of kmc moy councilor yuga xam nit ñoo xam ne mus nañoo nekk councilor si combatuma bang anin former mayor anin chairperson of kmc adi am ñu nga xam ne mus nañoo nekk mayor am borom toogu fii si ke combatuma banko ni wo botake su loolu mais mo kotagol men tentulange jayi ñana ɗum hammade ɗanen garam ɗiɗana sa wole mo mool min wole ɗumtanola police ya moy nit ɗuga hamne mool ñoma fo kon sidi kay police anin a tero na kaf ñumal andi jamam ye haritam ye banquero kijan ngamoyle gandal ngen fi kaɗu ɓeydanayi ni wol ye passé menu ya lonko inene kata cabinet ministers ti APRC la jamano mi ko xam ne mustano ne kam ministers si jamano APRC kala be siyarin jang ñoom yëpp ñu Yol ketanum permanent secretary. Yalay musa yol ka permanent secretary. Yol fana bijam. Yol ñu tamel ñu. Yol ketanum managing director. Yol ñu ben managing director. Yol fana bijam. Yol ñu tamel ñu ko tel. Yol se wol fana tentu bi jay. Ko pra ñu keram ñoo ñu santal. Bare former vice president Aissatou Ndiaye Sedi. Wa ku nga xamna musta ne ka vice president Ajabatou Aissatou Ndiaye Sedi. Mba tentu la mba jay la. Ñu ko keram di ko sam. Atuma Bese añu ma man Aning Aja Binta Sidibe ak Aja Binta Sidibe ayen tolle kinan family kam ñun la ñoone si kaw njaboot kanata sango konto pour ñu ñoo jàll si fii tey sango konto ndang ak indi wàllu loo xam ne moom la ñoo nuyoo ñi moom la ñoo jàll ni wobota jee su loolu passé e sino government officiel ñu nga xam ne ay liggéeykat yi nguur lañ te nekk si kaw tino la bés ni ki tey mbee tentulam mbee dee ñu leen a gërëm di leen a sax koren councilor KMC kan ñu nga xam ne councilor lañ si KMC bi mbee tentulam mbee jay ñu leen a gërëm di leen a sax sitting mayor KMC Lord Ahmed Talib a Ku nga xam ne moo nekk maire si jamono bi fii. Mbaa kontaan na ala la CEO ala la Dokular. Ñu ngi laa gërëm yaa sa CEO ak sa liggéeykat yi. APRC NPP and all other political parties melul bi dang. NPP APRC ak yeneen parti yu nga xam ne ñu ngi fi teew. mbe konton nam mbe jayla ñung la garam dile na sa nga political party ol fana je jamen ko PPP gis na fi ay political party yu mel ni PPP a political party ol je jamen ko UDP gis na fi ay political party yu mel ni UDP don na konton dro ga futal wol fana ma kon donc suñu yo ngi aga suñu parti ila mo kum mal le nata sen ni ñom fala fay fay da ñoo ax ni mo bota je so lolu tamit yes permanent secretary men yalan ko ibijan permanent secretary ngam na ñu ngi teer mbe konton nam mbe tentu nam mbe jayla garam dile na sa The Chief of Staff for our control. Chief of Staff, you are Garam The sitting National Assembly members, Mela Control, and the Jati, my member, Honorable Musa Badi, Garam Padenum Scholar, telling him. constituency la National Assembly members. ñu nga a ne si jamono bi fii ay député lañ te ñu ngi teewee fii ñu ngi jël seen nuyoo ak jaal di ko jox seen jaatige ku nga xam mooy honorable Moussa Baye nga xam ne waatale ñu fii. ambassadeur alkali konte mba konton na mba tentu la mba jayla ntede kuma fon wala koto la min yemen fara kuwoto o kañanta ambassadeur alxaali Konte ñu ngi di la sant si sa jéego yi nga xam ne moom suma mag lu mu wax fii nii te laamin ko ni du ma mën a baasa ko ministre men ya lon ko bii ton lebe siri man sakunda be ministre yala mbaal tentula mbaal jayla allah naala allah loodulaala ana allah katoo bee ministre si waxtu bii ñu toog si wàllu nguur gi seen teewaay fii ñu ngi leen a gërëm di leen a sant seen taxawaay mbeloo la jànganaa fo ko national executive woto motuje mammen konton ngal beejele ngal beelon ne allah loodula allah kate ko ma beelon ne bare nin la mbal kilin kilin kumandela nse wato ɓe ta woto ninga boni konton dron moomomu APRC militant yi moomomu APRC sympathisant yi moomomu APRC national executive member yi kon doon dina bëgg a téemal léegi dafa mel ni suñu jëlee nuyoo nuyu boru ko ak honorable boru ko ni APRC seen kilifa yi APRC seen kilifa yu jigéen yi mboolem koo xam ne kilifa nga si APRC ñu ngi jël seen nuyoo teg ko si loxo ko ni dafa mel ni duñ mun a tural ñëpp par benn benn nit waxtu bi dafa xat gis nañ leen te jéego yu ngeen jël kontaan nañ a special message soto from honorable yankuba ture kaddiyamu anin yankuba koli temoɓe num ñaame akon nin loota jang a to yaala nse yankuba koli la dimbayal kontoga e sagola am na nuyoo boo xam ne mu ngi jógee ko si kan di andi jamaam honorable yankuba ture mu ngi nuyu yanku mu ngi mu ngi wal jogooti yankuba koli bi ne mu ngi leen a jale dëj mu ngi leen a nuyu di leen a santa the Ibo community of Nigeria in the Gambia, ibijange ila nyaton ko bijang wol fana ni yankuba lord mayo ye kudu nyobulle otombe tol fana kontrol na samala ibo community bi di wa nigeria ñom tamit ñu ci jotaay bi fii am na jëflante boo xam ne jëflante lu ko ya yankuba koli ñu ko gërëm a a de ñu tam même be siring banko nyaton ko to yala jang abe siring speaker of the national assembly to yala man sakunda la même the right honorable Sidi SK Njai mba kontonna mba tentula mba jaila Sidi la kuo Lord Mayor to ntoite fen kono la je family members ya attest danne Sidi ni former Lord Mayor be nu nyame oto honorable Sidi Njai ngetentu ngejai ila lula ku nga xam ne moo ñëw si turu président yow si turu speaker bi di Alhaji Sidi Ndiaye ñu ngi laa gërëm di laa sant gis nañ seen taxawaay dafa mel ni njaboot gi di njaboot gi Kolokounda bi taxaw nañ fii gërëm nañ la te war na fi ay kàddu yu wër si sa ay mbir kon ñu jarul ñu delluwaat si kàddu yooyu waaye gërëm la sant la ngir sa taxawaay waaye sa diggante ay Alhaji Yankuba Colley amul dara loo xam ne amul bàttal. man mistake ka fo Sidi le be speaker to yalla jam man sakunda la karola bare politiko la karola honorable speaker fa bakari tombo njata memba to yalla golle mo honorable body lsb quality katum wati yolli eh, wati dol mol ka kumol yele manni ni wo bota je mbita dame wole mu e the first lady her excellency fatumata ba baro anin délégation ba futata nan sañ sañ sañ woto mba fana kontonna samola mba na ala lodulala mba tentula mba jayla patiyo toyala family toyala anin moɓe toyala sahna sohna buga xam ne moom mooy sohna président bi ajaratu Fatou Fatou Baro feetaan a fii ak mbootaay ak mbootaay bu takku ñu ngi ko gërëm di ko sant si taxawaayam ñu ngi laa gërëm sa diggante ak Lone Mayor gërëm sa diggante ak Lone Mayor ñu si sa taxawaay ak jéego yu nga xam ne moom nga jël day ak si fii nii si mbootaay bi ñu ngi laa gërëm di la sant diya mooɓe laala ñaame wolem wax ñu ñu ngi ko teralee mooy former cabinet ministers moo ne ɓe ndiyam lay tooyo la under three minutes dafa am koo xam ne dina wax si turi former cabinet ministers yi si ñetti minutes ni wo bota je sukkogu tamin wo heɓe pare lord mayo talib ahmed ben suda fanamɓe five minutes dilala lord mayo ahmad talib ben suda ɗinen ko jom juromi min ni wo bota je so lolu weeso Deputy Speaker, the Right Honorable Sidi Eskenjai Senadia Mokumfa. The Right Honorable... Sorry, sorry. Eh, the Ambassador Alkali Conte five minutes or so. Ah, Alkali Conte, the minutes, the Ambassador. My apology, Ambassador. Ni wo bota je. So lolu weeso. Honorable Sidi, you can use your discretion. Okay, fine. All right, Sani, I'm a lot intended. Lagil min bir mi nila ko tara. Bare be kuma fula fula. Dina fula nyari kan. Iko. Nyune. Lord Mayor Yankuba Koli agbetiata. Lord Mayor Yankuba Koli bahna. Iko. Nyune. Lord Mayor Yankuba Koli akendeata. Lord Mayor Yankuba Koli werma. iko ñune lotmayo yankuba koli atta ala femo manke atati lotmayo yankuba koli alala lu alala iko ñune lotmayo yankuba koli mola hajo wulita dawda ay menno abakela lotmayo yankuba koli nit ki fum joge ko ak sohla nga ñoo jakarlo mom dina jop taxaw jesse ay jego ko mu ñune ali nga ñoo ñininka na la ñu lajante jumale mu lotmayo yankuba koli na muso kan moy jabari lotmayo yankuba koli men nadiamo danna mo ne fofu lay dalena babula hakim malbulu legi dina ko baye borom ni la hakiloli kendo hansan hen Can we moye the lord mayor yankuba koli si ko lolu the former cabinet ministers former cabinet ministers ha na itoyala kene no sidan dur in under 3 minutes sibir nyata mi ko beni yankuba do ko dem yeb lay liggey ak yankuba ko fa kan amu ay waxtu ay wax ay waxtu na pewa nga fa len le jandi wa moyna moyna wa to Thank you. Boubacar nan ko ñewolem Dufin kuma da wax moy akon lord mayo yankuba koli na lord mayo yankuba koli anama na bola jankata kele council staff ani men e a koke council staff ɗum ana liggey ɗo na ka koye ko momo boyta a kasida dow kola wute kono ɗen mboɗon ko yankuba koli yampate yen mom lord mayo yankuba koli mune jeegal nana mbala aɓe yampo fara danilay ɓulu ɓe pare wedeelo tamin nangen jeegal ko mom tamin boubaka wala bambandi koye toon fana yewo yampo kayenne bouba ɗo laɗo peñana ñon tamin jeegal men mina lon ko wala fo na do ko ke bake man da bon mo mo do akiba yo nga amne ligay na yankuba ñom moy ñoo wax mo da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana wax jafe na si moom dara waralu ko da moom digganteem ak yankuba nu meloon démba ak yeneen ministre yu nga xam ne liggéey na ñoom ñooñu ñoom mu bokk boo booloo si ñi dali bala jaxofa ñu ne moom na wax sa tur parce que dafa mel ne moom moo leen gën a sut ñoom yëpp dafa mel ne dañ ma ko or su fekkee façon jotaay bi am na dama dee nekk be waar waarate bu rëy dama dee compté suma bopp bu baax ndax kii nga xam ne moom la ñëwoon bi la ndax dinaa mun a mel ni moom ndax mënuma mel ni moom ñetti mbir moo fi nekk ah. si njëlbeen mooy Yankuba sama na digganteem ak yàlla loolu yàlla la Yankuba sama moo nit ñi su fekkee pour sa jullit ya mut boo da nga loolu si sa xel si sa jikko ba si sa jëf ak sa digganteeg doomu aadama yaa ngi ko sàmmal loolu ñetteel bi yaa ngi ko place bu nga xam ne moom lañ ko dénkoon du benn du ñaar lu nga mooy axi place bi yaa ngi ko na axamoo kon ñu nga xam ne si place na nga ñu jël compte suñu bopp pour ëllëg si biir su fekkee jógee nga si place boobu place bi la bàyyi mbaa yaa na nga sàmm sa diggante pour ëllëg ak sibir moo leen ni seedaale koota lu nga xam ne ni dinañ ko seede si yow su fekkee téeméer la lum néew néew néew néew nga xam ne juróom fukk yëpp dafa nekk lu baax ñu dimbali la sant si loolu kon ñu borom place yi ñun bàyyi suñ xel bu baax yaa ko fa yal na ko yàlla jéegal wax ju baax lu nga nga wax nañ ko fii lépp yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla fay jëfal si liggéey al si mbiri alquran gannaawam yal na ko seet allahumma salli ala sayyidina Muhammad yo ala barka sani local government service commission members will be done. Local government service commission members yang fi. Ah, Jadi ba ku yate fana na la mol fana futa dana. Jadi ba ku yate da am ci tam yate. Be kon dona sama la ka. Yep ñu le na nuyu ci te bi di la jale ci bi ko ko de ngena mo. Na be ko nyama. Ko ka no la man. Ah mo sina ay ay eh, jaalo muta pour kene ñoo jàppale jaama over three hours aɓe lori aɓe jaama ɗum kasi ñat wax ma koy a kene ñoo wax jali ama koy amul mais même commandi la mais même commandi la ñu koy léegi wala mu loon meyo mooy loon meyo talib eh, ahmed ben souda talib ahmed ben souda a falasina jaamu moom ñoo tan ñoo garantie pour council ɓe mois moyen ako corno ceerno famille e corno tomtule famille ɓi gerem na ceerno aɗum yayi tan jande ko ɓe wonenan fine inin corno man ndeng ñoom a ceerno bokki jara corno ma wuɗu ko joɗu tuɗowul yankuba kaɗo wawi ɓuga yankuba woleya sinna cofel ɗum amesi yankuba wala ay fata men ta yankuba loro tan mo jel coono yankuba fata taye conna boobu jël na ko sidi eh, ko waajibo le kon honorable sidi mu ne waajib la anaaɓe kala minute kilindi wonu walla sule ɓenna minute ma corno so afanay kuma ñum may ceerno mo wattude ceerno welcome ceerno mu ne assalamu aleykum balaa moo wax dara balaa moo wax dara mu ngi gërëm famille bu ñoom ñoo waral moom mu ci kër gi soo xoolee mbir mi nu mu demee ñaari doomam yi nekk si Amérique dégga dégga dégga doomam yi tiraay nañ ak nii mi nga xam ne Honorable Sidi Ndiaye Honorable Sidi Ndiaye moom moo njëkk a jox 5000 si moom nda cukki meew bi dem fajo hollebul bakari bajo every time communication pour meew naka lay tukkee kabir mu kota jàng suñ jógee fii kana kana india buñ demoon india kana india india kana india dem india kana india dem india tokki tay bo meew bi warul bu baax ah, buñ wàccee yóbbu meew lopitaan bi buñ ko yóbbee lopitaan benn ambassadeur nambandi am na ko moo tudd Sanusi Badji bu mu koolee kooku amu ko so Sidi Ndiaye natam call Sidi Ndiaye call ko akonyo ko mbel alkal konte la ko dina ko do namba alkal konte mona ka ambassador Gambia fofu kapidi nga kumandi bu mu kole koku akonyo ay tanam tamma ko waaw almost 4 days mona ñum ci airport 4 days to premier mu ngi lopitaan mu ne wu dégg la ma président bi sa wax nañ bés bu nekk dama wax a président bi mbiri o mu ne ko moom ak ambassadeur Toki Gambia wax naa moom léegi léegi ñu jox ko two weeks visa nga dem seeti meew Friday telephone am pay na mu call ko ñoo call ba mun ko mun ko amul mu charge fi nam one minute rek ñu call ko ñu ne ñëwal moom mu ñëw ñu ne ko yow yaa ceer no mu ne waaw ñu jox ko visa bés bu nekk def def ne call ambassadeur bu di sax Presiden ko ma man président Kumandika information diyalare président fanikante Kumandika hunde ko i jokko information président momade kolɗima latte yakkuba nakala ya min ko lamin kollum wa fi government mbi mbiɗan government mbi degga degga degga degga trainay dimbalenani a baraka baake ceerno mu ne jërëjëf ceerno e eh, waato sutiyaata baake wattu ɗi gatana bare alpha men ɓe siri jam ini mbawi finega koye saytandalla ko yo won len jamego jidduma ɗi e eh, sappere nani fololu ñelenti sappa pos ye woppulali yenne bàyyi nañ ci yow imam ak mbiram yi suñ fi jógee rek ñu échappé yooyu ñoo ñu dugal ñu ejut ñoo ñu raxaar suñ aha baare julli ñoom tam ñu dugal ñu julli waaw imam ak mbiram ñoom tam ñu may leen ñu julli fanaali su ko defee ñëw ñoom bokka ñu julli si néew bi léegi ñu ngi nuyu Lord Mayor Daaber Ahmed Bensouda asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh waaleykum asalaam wa rahmatulahi taala wa barakatuh maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp. loolu mais o be ma be la be kontona. abalu tentula jang yu bari a jege kooka tugoon baalila kira bo jamaaji jam ene sujatala yankubati ak num noon liggéeyal si wàllu politique ak lu nekk si affaire ani men yaa ɗon ko ani ɗo koke produit ko kono ila duniya bolu ñañi makka on cerla pour ma waf ako woto kuñaale ma e braye kuma jam suma wafi duguda nak akala kumoto jam fala lu tuuti rek la am pour wa akaɓe kuma dantane fono ɗon yankuba koli dafa nekk ku nga xam ne añaano ako yankuba koli bo moole ɗum yalo kama añaano

হলো Yakuba yalasomola ɗum kana a mo omi soto ako waya jande ko a soto mo seniyata ako lanna Yakuba sawo kena bela fana KMC la sawore ah, mo Gambia la sawore mo akaɓe en sawo kontan kila kila excellency président adama baro famoye aɓe speaker fana kontona sawora aɓe APRC ɓe kontona sawora aɓe yi bëri nañ fi trop ako toña UDP ngol seera jam mbi baake maa ngi ànd ak UDP national campaign manager Karafa Sonko ako UDP national campaign manager Karafa Sonko ba ani wen slogan di deputy campaign manager oncle Baboucar Jammeh ah, deputy campaign ah, Tombong Seydi head of media and communication Tombong Seydi fana Abidjan KMC CEO directeur yëpp ñu ngi KMC CEO directeur be Abidjan kon lii wone Ya, yankuba ko libir gambia ako do nyi yankuba ko le lobla nyi mala itani molla ba ko gambia yinan ah, tawul torop na ako to nya ma o be talke onde hamna hamna mboka bu ndaw bu jaar suñu digal kadi ya bari ya do manin tambi den temale si jabaram kuy fatmata suso Aku amusu be mo fatmata di ya yam ku ko jur o bawa me ya master drame anate mama master drame ya yam ku ko jur mama me ya wulu ño boka ndey ak bay wala den ta fakini gambia fere Aku amne gambia gambia mo bankul dinati waaye Bakolé mi am ñetti engrais la ñooto ñetti engrais la ñooto aka kada jibere aka telephone aka fay bari ndimo afana ka fay bari on li lu metti la ako do nyindi min tane ah, bes mu gene aduna ako do me ako dunya KMC nahar mo fa am ako KMC ni bu ya bare du daje ken ligewul KMC mo mo do ko kewul ko ut da nga gis mi gene eh, na ligey wala kontan wallahi ye mo mo je kadi bu ya sudi aduna do ko amal na do ko le lo ko alhamdulillah futule kon man ko ñaanal ako rabe do ngi magala amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin Amin ya Rabbal Alamin. kabar ke um, Lord Mayor. jërëjëf Lodh Neo. Umar Sahayata. wax ji baax na. alama duwal mutala. yàlla na yàlla nangu ñaani. Eh, ay dina fana ko. mu ne nga ah, mu karam bu ngoti. muy ja eh, school bi. ne yàlla koto. boo xam ne na eh, management. ak management. ak school student. fana bee bi jam. ñoom yëppaan fi. Burfut. Burfut. Sirif Kunda. waa Sirif bi. Haydara. Sirif Keba Haydara. ala bee naatal. Sani. Legin. The, the Right Honorable Alhaji Bori LSB Kumandila. The Right Honorable Bori LSB. Katum jalik speaker bisa. Bala speaker dem. Kuma kula bulle. Wa baina popo. Wa sediamu. Damuwa. Sidiana ediamu kufa. Munyo sidi honorable sidi. Bitu Bori Bedanila. Sala kumbo sutiani no nyao ya betia. Gakata katumi. Mole kandali ya wala. Wala. salaamaaleykum. alhamdulilah rabbil alamin. jaliɓe mbaɗɗamɓe molle kumandila aftani baraka aduna yamo kono ema haar ko defa o e ɗi ɗi subare mo ñowduga sikkallu mima haar ko tuuɗi wattu am ɓenata jambi ɓe anmamorde kon ɗon supreme islamique cantre le même folo kon ton na ɓe ala koye ɓeydata ñin sankola wonabon benjamin robot ministre before Honorable Bayo, Honorable Ismaila Sanyang, Present Minister, Honorable Fatou Tinte, Honorable Bakari Badi, uh, General Manager before, Lamin Sanyang, IGP, represented by Ibrahim Abba, Honorable Samba Fal, Honorable Nani Juara, Honorable Mahmoud Sabali, Honorable Lamin Cham, Honorable Ismaila Sise, Honorable Balagaju Abumpa, Honorable Sering Modu Njai. Mais, mbe honorable deputy speaker kontonna mone mone honorable deputy speaker wala be sirin jang bi ti lola president toyama mo togal ti turi president bi tay anin first lady ifa nata mba kontonna ak first lady ifa tuba baro june aksina bi ñu ko noy ndela di amo jambi mone waxam ti tay mediam kam mo toyala mu ngi wa ci turi nit mba katala E mu esrael na diyam wa bawo wo mu fankaso le ti wo ma ko ko ay geji gu ndaw la ali haketu ika men banke wole yankuba adin keba afutata na sanye ata airport to ada dani roke imam na la moluma pour isa so dandi afama be landila asefutata mone to bu matti gor bi nga xamne E, baba Lamine Koli àgg na si bi mu ngi ñaan imam yi e, pour ñu may ko àgga fii ndax baba yaay baayam bi dina si kanamam. Honorable Deputy Speaker. Honorable Deputy Speaker. Embassy Speaker to Yalaga. To Deputy Tourist Speaker. And the First Lady Ipanata. First Lady ñu ne ñëw na. Ne menke la. Ñoo def mooy. Iko ala Ndebediyamka Honorable Fabakar Tombon Jata. Monsieur Touré, Honorable Fabakar Jata speaker turam lay waxee. abe me ay même fojje. lu ko wax mooy. ako président Adama Barrow. mu ne président Adama Barrow. ani Yankuba Tema. digantam ay Yankuba digantam président bi. amanke biiti de. mu ne loolu du tey de. o meta. loolu yàgg la. amanke président bi. time boobu nekkutoon président. walaat na. looloo waral. Kabiria mooy ko di meyo fasada. bu mu déggee ne meew bi tawat na. mu dugal si loxoom. ba mu yaakaar. bu ñu ko parlee pour mu dem faj. mu dugal si loxoom. kon xam ne. président Adama Barrow. président Adama Barrow. anala ministère. ak ministère bi anala Mansakunda. ak gouverneur ambassadeur. ambassadeur si. ambassadeur Conte. ambassadeur eh, Conte. ambassadeur alkali alkali konte ambassadeur alkali konte konte tokyo ay badin si koko gambia moy gambia ay president la palasota lenna palace president ah, meso wadme o ata ñanna tawla dame lopitano to ɗum waɗan a ñanna ko kukela gi ɗum waɗan def ye foofu ah, a keayne defme foofu alayba président mbita tamona président bo moɗen toki a jiitaƴe domandi o wacce foofu tuuɗi anin ambassadeur ndiyamta se ambassadeur ñowa koyɓe ko kuula mune lonne kadi ya make sure eh, on eh, lord mayo ya semba lopitan ɗo and ya tri loo mun a def rek la meso loot me o yóbbu nañ ko lopitaan te toppatoo nañ ko. ambassadeur Konte sa taxawal li def baax na amul morom. yebbaadin si. Mutma Mboka. ye Gambia Faasa. falal eh, nga Gambia. ala la bee moo la mën a fay. Alkaali Konte. Alkaali Konte ambassadeur Tokyo. nana Yankuba Koli. mu si meyo Yankuba Koli. ani honorable Fabakary Tombong Jatta téemo. diggantam honorable Fabakary Tombong Jatta speaker. o duma amantara doo kula. tawi mbomo ñaggude liggey o regu fabagal ɗo mbo jaɗa laftaka duna politique o kono on ɗon regul fabagal ton mbo jaɗa ɓugana dugasi politique bi adanema ala drive oti momoɗon drive adanema beeti mo yeeb anna mantara dow kuwol ñaggude liggey fomgol ka foy fabagadi ton mbo la drive o tawi mbomo ñebbanɓe ɗe wanne Babacar Sall tombo jaata la ne o yankuba ko yara ni be ko ko la ala muta ndege lo ne kadi a na fa akela kansulote nekana kansulote abota oto nako joga so deputy mayor deputy mayor abota oto joge fo mayor mayor atelen to la general mobilizer APRC moy general mobilizer ko APRC yankuba koli mu fanka sore yankuba kol gedila ama opposition long amul opposition. moom moo tax la office. ku dem office am. fii la haajoo jaara. dina faj sa soxla. ah wala dinañ ko. loolu waral mu ne. Yankuba. Yankuba. ka bɔ Kaatong. ka taa Boli Banna. bɛ Banna. Boli village in Gambia. Yankuba saatee saatee lɔn ka bɔ Kaatong. Yankuba dëkk bu nekk xam na fa. ànd ak mool la haajoo jaara. dem de faj soxla nit ñi. oh yàlla waral Yankuba bi ten de. kon loolu waral Yankuba mel nii. ko fi. kottake lumo gerema de niya moye kaari soodegue diw niya moye kaari soodegue diw sokono gergi mamadou sabale mamadou sabale ko majuɓede mole ɓa buma kono de ah, a holal ganawde anna lu fane ka wolem ala musoti moye jabaram ntol aprc ñon aprc janden tol la political bureau fi moye political bureau nin tol nata jan sum fi ñewe amala muso jabaram aka kuo bele kemtoli yeb la ñoo defa a konton a jii ndax agricole. dinañ lumalum. loo mun a xalaat rek. bés bu nekk. kon loolu jabar bu baax la. ñu ko gërëm ñu ko santal lu baax. Thierno Diallo. Thierno Diallo. sanction naa ko ba a léegi la jógee. kon niñ kee fula. lu ñaari ndaw. wol wol wol ka sacrifice. ñooñu day sacrifice. ala sansa waato. bu mu feebaree. lumalum. bés bu nekk. lumalum. bés bu nekk. ñu ngi fi. foy naata dafa tubaab. mun demaa moom ba bayi do. woto wo dindiŋolu. kon xale yooyu. Thierno a ana ana ana ana ana. Ceerno Diallo ak paretam bi mbe tentulam ɓe joyi ɓe ɗi a di leen sant APRC ngol men mbeɓe jang wa APRC yu fi nekka kabo kabo kabo katon kata koyna commencé katon ɓe koyna i beele bi jang ñepan fi memo ɓe tentulam mbaɗi jay ɓe gërëm ñepp sant ñepp wattu mo yankuba wa yankuba yankuba mu fanka solde koli kunda koli kunda fangola saji tol koli kunda ngolu ñom koli kunda memo ɓe tentulam ɓe mo ɓe jayla mbe gërëm ñepp sant ñepp alimamu alimamu yeb duringolu lool fi dekka ah. koy na be boli banna mu gel yëpp di gërëm yëpp sangolem eh, dégg la ah baram contenta waaye bég nañ baw biitilo basi tey naata waato diita su dee waxtu am na morle diama la fofi tiro de ngay wax fi lekk bi be tent la mbali jaya gërëm di sa aliye badin si mut ngeen gërëm imam jamme imam jamme imam jamme imam jamme ne allah li mamor be ak imam yi laftaal ye duwa keñe dafa buga ngeen may ko ñaan on meyo yankuba koli on rebul meyo yankuba koli yan fo fanan dali la mun ngeen ñaan baal bawo do ku du lanin tara du lanin ta du la liggéey fi ngay liggéey ak fi ngay dem ak fi nga dëkka nga ñoo tooñale ah dañoo tooñante de ham yan fo dani kon ñu ngeen ñaan baal on rebul alaaji meyo yankuba koli alaaji meyo yankuba koli mo si yan fo kay dani ñi mun ko baal mali tentu lambali jala ngërëm di leen sant jërëjëf abaraka baake Eh, eh, eh, chairman honorable honorable babu ke sonko e aɓe téléphone o kenan sayi kaɓo tubabu du ka fogo aɓe sango konton na gambia bera ani kotkunda ɓe ala baraka sanim ɓe men kela leegi ɓe ambassade o le commandila memo alkali konte alkali konte bare nga kalamtaro fana ke ko way yes nay ne honorable demba sabali honorable demba sabali ani honorable mamadou tangara honorable mamadou tangara dara fa idol tatale be sirin jame mo ñom tam dem ñu ngi tok ci jumaati non num ko sama be jambe xamuñ ne de tete ci sila ko bilim ko mo futatema wabi wabi aga fofu mo yaati ne botana nje kana jam sila tan ñu joge fofu ñoo fi data foñe fana ko ñu yebal bone ah di late honorable omar diallo oje late omar diallo oje conseil sa futandi ala dimbayal ma ñu yegal njobootam yi dëj bi mais yaatinna yo fo lu tax ñu wax loolu itol yaa loon ne ani yanko nu ñaame ñoom xam nañ nun mela yankuba yo excellence ambassadeur alkali conte yo excellence ambassadeur ah, alkali conte nga ñëw alfanin kam men fo kilifa bi ako former foreign minister babacar bless jan ne former foreign minister babacar bless jan atale mo akoto mati mo magam ako abarinti moy ni gayam ako wako yankuba mara childhood friend leti ko mo ne yankuba childhood friend am la ato ko malem kay e, rakam la aya kinam ay sama konto yo ne na ko mo yo ay tawale tandi lolado ko dum bani won sa lo wonyama ara be dame pour diamo wokke no te soto nola foni mbotana mbaade ola sun so président ni celawa mbi muna continuer mune assalamu aleykum mbenu ñëpp ambassadeur bi nekk à Tokyo ci turi Gambia mooy Alikari Konte Toki ngeen nuyu mu ne mu ngeen nuyu si dëj mu ngi commencé His Excellency président Adama Barrow mu ngi ko nuyu jaale ci dëj mag bi mu ñëw waasa si honorable Lord Yankuba Colley famille am bi nuyu leen ci dëj Kolikunda Fola be talindi be konton na kamara mu ne gana Kolikunda mu ngeen ne talindi yer si dëj ari tir Fola be KMC be konton na kamara gana talindi mu ngeen ne KMC yer si dëj bi Fola be Gambia be konton na kamara gana loolu mu ngeen ne Gambia yëpp yang ko ne mo ko doole mo men bépp a jàng mu ne yang ko ba nit ku baax la parce que wax bi nit ñi wax ko fii nin ko ɓe continue lawla woton metti ñanna janna ko kanoye ambassadeur mune su fekkene sun buge continue si lolu definam juɓaadi fina ñone ka yoɓariɓe ñin koña bewo men to ten komi ka no seede ala waye radio degala ni seede wante rek la yankuma ɗen ɗen mambara sa kakala ɓe tooki wona ñom yegun e eh, feɓaran ɓe ñin won tooki o birin abulata kulinsiraɗa a ñanta kala india pour kata jaranola ɗum jogee si peut-être mo wara india pour dem toñu andu mai yabulan ka arrangement to o ñet ko goɗum han si peut-être a arrangement ndi ko boobu mooy président ɓeynaka fo um, istanbule ñanka peeno fayndalewol ta na jiitawol ɓe nataje ko ata continénola ata indi buñ ñëwee ba istanbul ñu gis ne foofu la war a sensé plein bi ñu ñoo gis ne du mun a romba foofu dem india ñu wàcce ko togiya nendu ba kunna wala mu cerno jalloti ani uh, turadu wol man tala contact soto bari yo na contact soto iniwol man ndiyam no ñu ne gasi boppam mooy Cerno ak Turaadu amul contact waaye ñu nga xam ne am nañ seen contact ñoom lañ jéego. tana katoke ko eh, ining ina tana katoke ko eh, ining na deputy anin sanusi baji ining e katoke foli e contact ñu ñëw try moom ak député am ak sanusi baji ñu try bi am communication contact ren kama fanan na tan su to ko me be kata kan na pesen do jite la banko kan na kuma ro fo bata kan kor go mun so suma pesen watina si sa rewmi dum la tray ha man da yeg na ko ay mo ma ba kala ba bari nga kom fa mi na deputy ya ma be do ko e ka fa ma ba technicien bu ne yegu ma go way deputy am e abas ning eh foki modiamo te airport pour qu'à transporter kala kurantoñin ka samba lobtaɗo ñuño wa e toki e, ñu wattana ñoom bedego daño transport ko yoɓu ko si l'hôpital tum waɗane ka toña ceerno ñun laamenmaɓe silo kan e meta lobtaɗo to mine degala ceerno ñi nga xam ne ñu ngi anda mais aussi yon bi yagana si l'hôpital bi yagana si airport bi ar biri yera kumo fañin koye mao ñasuto waaye buñ boobaa loolu mu ne amul jot boobu njëkk a. kurantoo min be jee ŋa wala koosu fiye ku feebar ki fa nekk na ah, soto affaire kooku njëkk a. am na dindi wala yéen na kaw mooy de fana ni ñu ne sa ñoom leen ka siire airport. xale yi yegg nañ lu mu waa ñu fàtte ñoom tenu si airport ñu lijjante boobu. fo kurantoo ñu ngi yaa dundi lopitaan yi abe ah, docteur olu fota tam. ba ñu dugal ko si lopitaan bi docteur yi àgg na si moom. ren bota jeelam naa dana loolu sotaaɓe ɓe pale tiɗan ñew jubuloosi mbiri ceerno e ñu génne leen ci airport eh, o koola hadinde wona kana wuli because ankarani ki tambul ka ɓori contoro eh, watir o sila haɗami hijo digande ankara ak ñu dem seedi ku feebar ɓri nata report taƴa bu ñëwee rek ñu report ci moom sano sede o mu mamoɗati wonta jayro kala bari mbe abas jayla mbaten mone sano si mamam laadde ko gueɗen way abas dina ko gueɗen dina ko santa dindirnal mu yenna momoy mone haɗel lan wa degana ci kaddam lum wax ñu def ko e eh, jayro men be katantele jaka on tele suuti o ni e sama do siita yeddi mbaalugole taka kum kote kaɓe siine mone gueɗem luñ ko def fi defa mel ni rek borom keɗi nawet ñëw nga bàyyi njaboot yëpp dem si àll di béy yow yaa ngi si kër gi. ah min tere to si eh, ko kaari la eh, sama diata bari wo kakara sembo men mbaɗa o fonni toon so somin jonde ine he eh, e borom diw e kedi diw a ah, dewetan mbi de wawi ndegede jogotiñu ko woro ñowko de fon defanannam dow kulaɗo ngu tolleti mom tam liggey kaya ñoñola ñoom ñoo nekka doole mu ngi leen di gërëm di leen sant. ko ngaafaali ñaame ankaraani istanbul tema waato e jee keno kene baale bi jee lu mu leen wax rek istanbul ak diggante ankara diggante boobu dafa sori torop mbiri nga meeyoo la sango soto mutolu manki di kidi laanaa ɗo jee buñ te yegee e jaj meeyo bi munuñoo jóg teeteel pour di aga foofu bari moo fu la fo sababe istanbul wala yem maa ko jee loo tan ñe jee jiiye dow fuu o ɗo kon kon suura kala e toon yewtamande jee wa am nafa ñaari nit yiɓe ñeta liggéey boo xam ne ñoom loolu lañ war a taxawal si Istanbul foofu ñooñu taxawal nañ loolu ñu liggéey ko fa loolu foloo ka baye Malick Baro ñu ko waay euh, njëlbeen bi mooy Malick Baro Gambia loolu la association a telam président i Istanbul association Gambia ñu nekk Istanbul mooy seen président o koola fulan jamu men be jee wala mi ka fay gam ñaaral bu fa nekk moom moo tudda Duudu Njaay e ndin kuluurin am eh, ministre amen fele sirin Serigne Serigne Njaay a dow maɗam xale bu yaru la ministre bu toog fii nii Serigne Ndiaye rakam la bara ken kumandila ken ñinin kaam do ko men beegulu suloolu men beegulu Istanbul du kara foññin ŋattaamat ni daf dee oo si téléphone liggéey bi nga amee Istanbul a loo bëgg a def wax ma rek ma sota af yëpp fana mba jeyla a tento mu nge gerem duudu tamit di ko je santa saba njang wala mu e ka fay mama jaaji ñetta bi mooy mama jaaji sambu jaaji jaaji di mo dem farafe jooni sambu jaaji jaaji la farafe bari ya ala musu ya mo kada o jibe ko si jatona waaye bul xool ne jigéen la de jigéen ji gaynde la biri ñin ko keta afana ye surtout le dum sa lo ñeji beli hapune tubé la sol mu taxawal ko foofu so an senni euh, la jeyiro an yetti so wa ngel gerem ni ngel maylen ñaan you know birin uh, atondi um, euh, meyo ban uh, beneta meyo bum bato be pare president o akibaro kama wato men nan nadiya le president bi yek mo ha mom ko ngem bita office so manda juno la ko ngem bita office tin ko to kan ni la chief of staff dia mu ne maa ngi dem office su ma fa àggee dinaa waxtaan ma chief of staff. ko nga bari feŋ o feŋ be jee de pas suuf man sa kunda la taa because birim folo nga fure ko ñi waaye lu fa nekkal lu lu oote dépense bi rek lu war am foofu yëpp government moo ko moom parce que waxoon naa ko njëlbeen ne lii président eh, government bi président am la Ne dépense kanta famille ya wona ne den dépense ɓe ɓum ɗem si famille mbiɗegala loptade dépense ole mum nda lopitan mbina ani ngala murunnawo jam nda delo si gambia anduyta fawoye la silo ka yenañum fure nan yo mi gatte si kawam gañowa mom si gambia fii ako nge fengo film be kafuna je fana ni ali fen kafundi je badi won ni si nyolo ako ay kessa da mun ko bari man la fi de passo carola feye bo ko do lo xamne dafay am fofu su ne at be mbokay la na ne kassa rek way dépense kay buguma kenn génne loolu si dara amaa fa jëpp amoo fa ñëpp ja wa ko ne mo ñoo wa ko de mu kara di ni sayin kan mais mun a sayin kan waaye yéen mi nga xam ne borom xam-xam ngeen lu baax il faut nga ban ko so al se musi den nga so wala ka tentu ka jay ñu bokka may ko ñaan sant ko gërëm ko mais wala kay ko ka ñi ka han ko mu ne kaydi meewo la dafa bëgg a hand over loxo famille bi laamin laamin le ana laamin ana passeport wala ɓe jang ana ala loptane kaytolu passeport am bi moo fi nekk ak kaydi lopitanam yëpp ana bagage olu anin men tatan e ɓe claim airport du kon ɓeɗa airport ɗeɗan e ɓe claim e andu il faut que tajjate ni forina biyena tañwala claim nan yëpp ga yëpp agana fii ah, ah. Bagasi e ngata fekke asan ay baga so asan na temno da mu control baga si yep aga fi benna ko ko fara damen wona mo meyo alama nasula aljana yo ala baraka wolemo ambassadeur alkali kontati mu ne jërëjëf jëm kii mooy ambassadeur alkali konte bi nekk Tokyo diyamu la labaŋo wole kana ka diyamu isaje nga duwake kata eh, jameŋo to ka salfana sali ku amee waxtu mu jeebi mooy ñoo wax ni su waxee su paree ñu dem ci juma bi nga salfana nga salaam suñ julee eh, eh, fana ñu wax ñu gis ne euh, affaire yëpp mut na léegi ñu ñëw julli si néew bi. gannaaw loolu ñu jëm jox ko boromam. oto mbe de right honorable Sidi SK Njai commandina deputy speaker the right honorable Sidi SK Njai deputy speaker mbe men salinding red cross dalinding red cross mbe tentulam mbe jayla mu leen di gërëm di leen santa présidential adviser men ɓe ɓe jam présidential adviser ñu fi nekk yéen mais tentulam ɓe jayi gërëm nañ leen sant nañ leen eh, Bala Dieng Bala Dieng action man ba tentulam ba action man ñu ko gërëm di ko sant anin sefol menu ɓe nun jee ani menu tenin jee ngawol ɓe suute mol kon ak si chef yi ne ñu fa nekk nekkul fa xam ne yëpp nuyu nañu ngol fana tentum ye jayi mu ngi leen gërëm ñooñu di sant ñooñu tamit eh, ay mooɓe konto nan ade tambinola mooɓe tola kono bari moɗol ɓe e faywol tol fo adama ɓaro tola président o ani masakunda to ani mpp to ani nadokuñol ɓe abol diyamolol ɓe tola ha excellenci adaratu fatimata babaro leydi sadio eh, demba sabali ministre of agriculture wolam post député national mpp de abidjan on General and Party Party Leader. President Adama Barrow. aduna ɓe siiri adi cabinet ministre sol national executive member sol ɓe ɓe ɓita advisor sol ɓe senior government officers ɓe ɓe siirinda ada demba sabali toola ay ɓe konton ay altentu ako chief of staff mol sise fayato ka jayi ka tentu ɗum heɓe kena anin mbiyetema eti yankuba ɗum heɓe be leydi mbeɗi kana ɓura mbiɗa président instructamen o e pol men ɓe ga ɓeɓe sénéare mune ako chief of staff lummundi nder keno it's well ben keno na ani afe siri njaya coordinate yankuba kaje yankuba la jararo ak defansa ana ro defanso yeppa ya aliyaɓe tokoto won feebare ɓe yiwo koko tokki bira kuranta fo ya samba tokki ɓesgo naddo hal affaire yankuba way dakkorto hal mu sekɓe o atem amanke ko adam male dige men nyanda yang bola kota mal bal alkan kontel konte nyamen ta anay tama dinya kendo ni saharo men kala koto ko kuma ya taba kuneka mom ak president ci ko ak man ngi watele ko luwolum president ni alkan kontel anata siri luwolu be diamula bés bu ko président ne tamit danaa ko danaa leen jox nomba ma jox see escorte yi nomba ambassadeur léegi ambassadeur ngeen doxal nomba. bi ñu nommé ay ambassadeur nomba dii la de kolla don um gaañoo ba léegi mbiɗa ɓandaani mbii fanan ambassador Conte, chief of staff Modou Cissé, ya tamandira anyama fana président ya yafo nyama way suma waxtu ala kumoni moy tamit fokk ma gërëm di managing director Gambia eh, International Airlines fasi managing director Conte Gambia Airlines International Airlines managing director moo moo du saane lu moo saane bu mu xewee ba léegi bi ñu googe dafa saay mana chief of staff adani chief of staff ani honorable Ibrahima Silla ene lungoɓe ñooɓulle dron demba sa dafa dem liggéey kunum ko tata ɗo kuola si barki demba lañ ko yoni pep kayit yépp kunum koole kaytol beeke ay mu ɓe o pepo pour asar ɗo kuol kaytol ɗo kuol beeke xam ne comme actionnés. naa futala dɔrɔn. jɛnube asita. yamma denna liggéey. kunumadana doo koo la. toppatoo k'a toppatoo. mu kool ñu. a ye kool. wax ñu a y'a fɛnw bɛɛ fɔ ye. filen bɛ kun t'olu. filen dɔw bɛ ɲaamɛ. di ñu ko wax. a y'a fɔ ye. buñ accès Mauritanie sa. bi ni futala Mauritanie fa. a y'a u fa demee. bi ni taata. néew bi dafa ñëw rek. ye fuloo bi naata doroŋ dañ ko jël yaata ñu naan yaa bee ko boto papa rek président kuma euh, kaw oda kam waaye président ako président mu ne ku kenn doo kee na moom de ado daa fo la de waaye yow ku ko defal etela ñantoro mum yaafo mooli yaallom bari ku kenndole ñilin suñ ko def jigéege nin ɗoole yaamoy si yaakaray fana si ku kenndo baala président lum def yépp président ay nen beeke 99 percent bépp kono kola jaar tan konon to nin konon to ɓe tan que njaay mu loola kono kon fop mo wax woto fasi wo saga moli amoy pour ni ni ni ham ko mol sala wonya amna ne ko buga ay alon ko la fila wa in advance ma ni apologize bala la bala bala te ba a ko wonne a ma ko a ko mo atene alon fo no moli eh, e eh, yankuba koli e yankuba koli terol tola turi politician politician ol tola ak mu fe ñew ani ya lon ne fatumata suuso ay musoya dafaale ala futubunda dafaale a loota yankuba ye a loota famili ye a loota do ku ñooli ye woto fatumata mata suuso ya konto ala lootula ye moo bee tentu faaba ka jata toola wane all the National Assembly members. National Assembly member National Assembly member. jiitali seen post MPP. ila ila ñaatoon ko la post MPP. honorable Moussa Badji. honorable Moussa Badji. député wul bee naata de. staff wul bee naata. te Sidi Eske Ndiaye ak ayal bee kontaateel maanaam même bee naata jaa. Eh, Yankuba bu dee demu tëdda post de. ak ko Yankuba bi daa taata ayela post de lu mu foloo men. Keba bi daaneel ko. kuulama ya boyndi ya samba lopitan président ooma président yakkili numane yankuba tey seebaɓe dakkotanen ako ya foñi ko yankuba bi ala sasa ya boyndi la sohma haalis ay ko ɗoɗi ala munema yobun ko a samba e oɗe men gakkol ma yen ko difnata ni ngayi ndiya ma jox ma dem si lopitan bi bila bila lopitan o to fekk fa yankuba a yankuba taraje président mune président ko mune haalis bumma jox ay ko ɗo men dini pour défendre dépensé na. waaye fay garab yi. barka boorool jiw. ak laal bi ani laram. ak lépp loo xam ne mooy arbier. ani kawo fɛn min y'alo lopitaano la suuloo lem. président a ka tere taa mu wo wo ko kuwo bee taa b'a kala. a ko ni yankuba kendeyaata. ni yankuba bɛ kendeyaari. n'a bɛ ni ala bɛ kendeyaari. ala yankuba lem. n'a kuranta. ala yankuba lem. aya kool a naman ndiyam ba aya moyle eh. a content president o doctora aya président o docteur o kuman chief medical director ani chief medical director nañ dem a kaay ngata lépp loo xam ne mun nañ koo def si yankuba fépp ne yaa doon saa kenn o yankuba ye e boke ka after some time wato lol si president ko mo ne ko sama ya kuma da kai ko ko na dépense bobu warna ci de aka nga dépense ko mendi la nyanta banna be sai aka ni fana samba dépense ay wo fana samba yanko mo ngeme dañu bay ko bila ta da fabo taje president ko yetima ko sama ya kuma ni mo ma halis bi tamé aka ni ko do a samba yanko bay dépense ko so de me nga ko no yeni kili na ma ñew fi ana ada jang isi dépense bi ay dépense o naati kool ko a kool anu yankuba diyam mu ne ma wer naate yankuba kayen kendi asale bi ay waxtaan i kaccata fo time also siña naani the same thing woñaale ma ñëw anaata isi ko aya kool yankuba aya ko ko yankuba kool idiyam ñu am isi dafa meeta famille bi ñu ne dañ ko war a yóbbu bitim réew famille ko ila daka samba bankoye bantala waaye fekka docteur yi lu ko war a am rek wax nañ ko président. la ana docteur olu. yaa añan dam leen day sotti laa yaa amul président waaye. ñu amoon technical advice. te technical advice olu soto. ñu ne buñ ko yóbboo ngum naaw. te kana samba sayin folo. dañ ko bàyyi ngum. nga batu folo. koo defal tarami. et be kool men kee kaay ja. te mu war a dem. fo a ñanta a waato a ñanta taal. moo ko président. Ah, a yaa fa président waaye. mu ne ndagaay am nañ fu baax foo xam ne dinañ ko def. ako fo ye dula men be ta da simen keno ay are ak ñom tafa sosé enen tafa sosé are ne every time trafi bi e ko wato wari trafo ni 56000 56000 lesre moy mama ko mo ko fe president ko atele ba jol jo ma 56000 bila ta woro ni eh, wuli woro ni woro dia bila adi tafa sosé eta do benen bi do plan jaw jokko tafa aya do tafa benen bi do ko beneen xaalis bu dépense ako ga ko ɗo dépense o côté ke ak harite yankuba koli président a sidi ɓe mo nekka fuel domɓe at state house sidi ɓe wala fuel o ɗi atata ɓe state sidi ɓe mo sidi jokko haale président way ko ɗo ɗi wala mone ko tawi yogo pour dépense a kani samba yankuba e fulal dépense o e fen do fo jam so gisee man ko wa mi ada ba fola ah. ce mu ne gaay ut nañ l'hôpital e ce ko gaay woni l'hôpital woni ni waaye registration bi ba registration mu ne 25000 25000 le mu ne pour ñu wax ko président pour saa ko président ne ko bii moom du ma ko wax ah, ñin dañu fola président ma ne ko kañ nga ko fay aka ah, ay ba jola ba mu ne non pour ñu mun a accès dañoo fay 5000 ginnaaw nin sa sotono san wuli lulo jo wajo ko 5000 ay wuli lulo dia bum bu hewe bilo keta pour tamit yóbbu ko bitim réew pour ga samba banko bantawa ñu ne ten taw lañ a fay dollar ko dola wuli wala ñanta joola président mu ne waɗɗee ba moom dana ko président ko ate boo joola ñu dem arrangement bi ya arrangement o at the end of the day now lungu bandula woof the total cost of thirty one thousand a daata cost wuli tan sabanin kilin dollars loolu yëpp wobe loolu la président Adama Barrow président Adama Barrow ak nguuram alaala ma sakkunta yo wala joo kon kontaan tabaake e bunde ba léegi gada bantaani saay chief of staff chief of staff ak ñun tolu ay moto yi ani moto ambulance ambulance o sécurité sécurité yëpp président def après président yaa fekk kon président mu ne oto président ko Yankuba ako yankuba mo fahamurin mba mo tenkumbin ba aɗu kayramolem aɗu misilolem ligeyel na humanity ak kmc ay dogoge hadamadiya ni kmc ligeyel na gambia ay dogoke gambia e aɗu aya fandi bakele fana lolu those are divine virtues wol mu record duniya ko nani lake o doku kendo ko ñanal ɓe duwala en président adama baro président adama baro tola ani gambia be tola alama ala yam fokay alama atala andena ko tun dawsi fi ala yum bay tamit ay men fi jam bana yalla may len wer alama atala jata ken jani ani sima ya ba ani ay baraka ala baraka yo sani menu be banta wol sali sale don menu bitan e be bijan dolle bitan jamen to ga sali lafta jama danila men na wolem mo jama nata ini la bulu feŋo lafta sala eh, sango kontonta sande men kela ŋa wakkilinŋata ni ŋa sali fana sali ŋa saliyama ŋa dandan ŋa murŋan jan mo yelo eh, sada mun tol di doro waduwalkeden moye sunduna ɓe pare jodelo sigi wakko tan Thank you. Yeah.

Asilo fɛ, janka janfa. 세 가지고 하는 있어요. 아 가지고 Uh, Marion Simon bida kan jame walto bida uh, honorable Kolila Suwaye kana aliya yele yimbe mu mole lati Joseph Shotman hmm. ఏం కూలేను ఆడో కోమాలేను Allah'a emanet kembali kalau sayang um, selfana salo bantale uh, be selfana de sale kadno sayang um, mimbe lala ka walen fure saloti um, nga fure le tandal tente mi alon kabe laring mo jamal fintira uh, dem fure salo ke drum ko la wa sambala bare ko pour eta sutra uh, selfana salo wala banta tente sayang uh, fure salo wona karake program not allowed to go such different levels. Now, after after that, I'm considering what I'm going to do.

ترى أتصاب على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم Thank you. that to do. Yeah. hmm? Yeah, of course. so ko ma fa ñaamen dam sel fana salo wala ketan musa kana fure ñi ne salil le fure jo le wala ran tan Ah, ali, Hey! Sonra altından, sonra altından canı okulu, altından canı okulu. Arjun'dan tane okunu aleyhisselam, Arjun'dan tane okunu. Santa Fata'lı Arjun'dan tane okunu. Arjun'dan tane okunu aleyhisselam koluna. Allah'ın Allah'ın Arjun'dan tane okunu. Arkana sıkıntı Arjun'dan okunu İslam'a. ಬಂದ ಪಾತಾರೆ ಬಂದ ಪಾತಾರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಳ್ತುನ್ನ ಬಂದ మహబూబ్ ఇస్లాం సరిగడు ఉంటాం నసపు ఉండాలి నసపు ఉంటూ నష్టలు గురవుతుందా నిలుకుంటే ఇబ్బంది అవునా వచ్చిస్తాను మీకు అది మాత్రం ఉన్నావా ఆయన ఆయన మొదలు అన్నానన్నాడు k e n i atara fana mari yampata asifundina famili fana ka tana itandina ko fembenna temalena

akobari alhaji isa aɓe danere ñimma keɗa ɓuuru a kara moɗo mum ko ndiyaji atata sanɗo keɗa talindi ako ñinodi ya tun kam mele fen be yitande ala fana koka jamme men moye dawɗa ana wulural kola anata kola en karamo ñimma len sababolti atenen lamen toure akoto niwol ɓe kene walla ñamtata mbila koɓe ñaato ko bona ni yankuba ko kaca bape ani yankuba ko ko jamale fo ko siñalaban fo kaɓila tata je moolu bije hani wa ka imamu nayi nan kuŋo muta naka ku jamale ke wala naɓe baɗigol be danida ay lowoye ako alisien faye sudu kawa karo ko punya ko ko dan jam sama 100 simen a woni ko yim foundation te yim trimpo kula a woni ɓe samani woni ko ɗo fisicali newol min famara min bindi jam mo maɗagal bandiga fo ana ko ɗumam kana ko ngol ka fo ñin ko anan ko fulaan ko ɓala a fo wiyakin ka fo kebar ñimmaɗo kebar ñimmaɗo so yimmoye dokoke allah pungaw koma jeyna ten wala ah, nambal be jeyɗa mba tenta dal siyam fam Thank you. Allah Akbar. السبطور الأشكال هيكونوا بالموجة ولا 15 هيكونوا فرقهم Ah, então aqui no Google agora está uma coisa. Vamos iniciar uma coisa para a cama. Obrigado. نعم ايوه مساء عمين على ابوي نعم نعم aɗon sankata jamen to pour kata sutura um, woletuta alay ñal ñaɓe furella tentin ñalon koye kanatele sika um, polisol ba sikala la ya samba ila moto to uh, pour kata samba uh, baɗe koɗo sank al ñaɓe ñin keso min na tentin um, wolem furo fure keso ñintin so mbaɗi on sawi moto felindi abita kan da men wolen mbaɗi korde al ñaaɓi moto min ko komaten ale musol jele ani sawi dollo kumbola jam currently Palihapli Nyamendo Jamal Bijele Nyalong so it's very sad Molem Nyalong ko Jamal ya described as a very good pass in Molem fana Nyalong ko ay mo Jamal le ma koy talen dinja atina musol fintiga silo kan kumbo Ali Aja Nyamendo Adam. mbaɗigol ko ga fo ñamen ron ɓe silole kan sainten de mbiɗa kam mbaɗe école to um, aliya jele moto mi alon ko fureɓe walla kono tenta bina kam min alpha ti mi alon ko wolle nata maɓe mbaɗe wol aliya jele moto ñinne ñinti fureɓe ñim moto ñinne kono Yeah. baare ko dole sai be fure jindi la le pour ba dundi baare ko ko non be ko da sai sai te para mo ro ko non ma jindi ko jandam baare ko di ale fure o te Sorry for that. More movement, baby, as a more core for dengan yo sene adole mbete ada mislimo le mi hakuna mboki mabalo ndema mbete ya nanyina mbete ndo moja weli kana mboki ndema ngere Abdurrahman, follow instructions, huh? Don't push up on anyone, okay? For my leadership skills. Bye. milyon. Dört milyon. Buraya. Buraya. Buraya. bàyyi leen kii ñu ngi si dëj yéen bàyyi leen kii ñu ngi si dëj si dëj leen nekk bàyyi leen kii ñu ngi si dëj waaw yéen a nekk rafetlu. dañu ko bàyyi mu jóg bàyyi leen ko bàyyi mu si dëj. bàyyi leen ko mu ne lu ko def. monsieur Mar sa bañ daal sa ko bopp. maa bañ. xale yi nag xale yi nag Thank you. walingol saying meyo dunta bade go kono ta mi alon koy ba susara walde um well ndanda bundal to because pour ka fre fanana ko sam stro diala um, walatin man camera dundi bade go kono wala sa dundale uh, fele fre keso nyingi a jindele science science ba sutural ay ah, ba baɗi lattalinde mbaɗi kol ɓayri mais yo yankuba koli momo yaalon yaalon talindi ah, ah, jande wala nabi ala ñisama sa fono talinde mume o finditale ani modol mi yaalon ko eh, walle bata tuladol to pour kana maɓe ñem mbaɗi ora kado mansakunda ɗo kuula lemba opposition parti o lemba ani mo jamalu mi yaalon koye lonta baaki gambe banko kan jam ndimo jama lefindira pour kana maɓe ala baɗe wala ko nga fo ñamen ɗo ɓe talindin baɗewol ɗo sae ɓe baɗekol ɗo sae saen tendin e anduga fele dundi yadundi baɗekoñin kono le ale mol jele we sarin kono ɗo iba suturala jeele mo kola ɗon sae mol si jan jam koloda sole kono mi alon ko eh, mo jamal diyamude jeele a faŋo ya ah, ya seeɗeya pour kendol le mi alon ko ay walle ke kabiraɓe mbaɗolen tumo eh, jamal bijele mi yalon ko eh, describe ko molem mi yalon ko oh, aya famma jir bakele eh, aya fan ji bakele andu molem fota mi yalon ko oh, aka soroke molem mi yalon ko oh, fanan aya moɗo fanan hati mo mo sifade mo jamal ya seedi awol mboɗa jeyen tata jameo ɗo da mi yalon ɗo da mi yalon ko sel fana saloketa o kola ya ala furewo ñin sali ɓayrimum silmolem mo jamali ya seedi awol natana baade koto jam bari ko nga fa ñamen do ñim baade koto jam bi mol siata bakele ko aliaje jam musilo ñillati silo ñeng mol harama dingol danta dame ngi tallo nola ko harama dingol danta janne ni silo ñeng jiwe e, andum bari ko kono to fanam be farenne silo la karol bele be faren bi natra alba jiwel otombe wolto science and tente nimbade o kata do molbe molɓe janjanno sani eh, baade o ñin aɓe onne sain ore din sa fono Thank you.

ndeyefere o bonni keesoñin kono le aɗa ni lifinamo bisimilla ke kees bi ko teg si suuf asi nañu wàcca ñu gan wéerali rek Vamos a querer. Correr. Okay. So, video kita le, sayang uh, yang motor le freo nari no, akala be keso yang uh, murundi kan sayang. Um, milbe milbe bade ko kono sayang dua le be kirinje. Bari freo yang jinni keso yang kono le fo motor yang kalentin sayang, ni anati uh, motor yang bira kan le sayang. Barani sayang molbe janne, molbe um, kono le. kuruka ah, mabe ah, last jindirol la <laughs> ibu, baru bu banyak dong flashkan Thank you.

My last uh, was in my house uh, about uh, year ago when the group came to visit me. What would be your final words as he's been there for time? Thank you so much. So molɓe finde kane sayin baɗe ko kono ɗo ɓarin baɗe o ketale already ko aliyaji ñamen ɗo molɓe finde kane sayin pour kata honorable ministre demba sabale onin ɗo tawi smola sise Yes, I know. Vamos a creer. Oye, con él. Vaya para adelante. Vale, vale. No, no, yes, yes, no, no.

Purukara. Um, Ali ajal esai mulai fitikan ni Um, Thank you. ya ini mbak Tara. for the early hours of Tuesday. I was not imagine, I could not Knowing fully well uh, what was happening during his schedule. And he has already recovered. I even told the escorter was going back. So my job. I said to him, "We are going on Wednesday. In two weeks' time, Lord Mayor will be in the work. Yes, I've been progressive report from the medical team in talk. Unfortunately, the what Arab decides is what they can change. We to start their own very sad. Investigated. Because, um, you know what a kind of a man he is. Yankuba Koli is a role model. Yankuba Koli is very humble. He's down to earth. If you go to the council when he was mayor, if you don't know him, you go to him and say, I want to see the mayor when he's very down he's very humble. He interacts with every staff in council. You know, even his lunch, he has instructed his family and his wife that his lunch must come to the council every day. Whether he's in the office or not, the lunch comes to the office. And when he's in the office, when the lunch comes, he'll put it down on the on the on the pillow. Sometimes we go to the veranda. Everybody, be it a cleaner or a gardener or whoever, if you are fortunate to attend to to, to, to meet the lunch, you join him and have lunch. That's how humble he is. You know, and he stands in the interest of everybody who goes to him. I'm a testimony to all of these things. Um, fortunately for me, I was the chairman of the finance committee of Council. All the developments that Mayo have done, I am at the center. All the, human, uh, the human, uh, humanitarian assistance that we have done, a good number of them I was present. Sometimes I'm, I'm the one who gives the money to go and spend this money give it to people, you know, not in the religious aspect. He has supported both the Christian and the Muslim community. Mayor gives people tickets to go to Rome, Omega. He gives tickets to Christians to go to Rome. I'm a test And I'm a that is not one year, not two years, not three years, not two years. During this period when he was in He didn't. When it comes to Ramadan, he will support the Muslim community. When it comes to um, the land, he will support the Christian community. I've been attesting to all these when it comes to infrastructural development, we have done road network. Even this road we are standing. This road we are standing. The MPP is in 5% contribution of the hit And then, you know, we built a school, Charles Dow. He built a mosque. If you go to KMC Annex, he built a, a, you know, a Juma over there. For you to pray Juma, for us to have Juma prayers over there. Because the staffs at the annex were over 500 staff. And they wanted people to have a conducive environment. And he has supported many people in terms of scholarship, education, you name them. He has done a lot. And definitely, uh, I always tell people that when it comes to water extension, we have one. You don't even just always talk about extending pipes. Even instructed us that we should put, put taps in every 10 compound wherever we have the project or water extension project, to ensure that every 10 compounds to their one tower. The reason is we are trying to destroy public standard. But there are a lot of wastage of water on the public standard. We said now, you have to control that. Put every 10 compound, let them share one tap, and you put one tap with the These are things that may have happened. You have to manage. I can continue till tomorrow morning to uh, this piece we have got. Not talk about market construction. Not talk about uh, jobs.

When it comes to politics, it, and the interesting thing is, even if he knows that you are UDP, you know, you come to him, he will support you, he'll help you, solve your problem. Depends on what political party you belong to. When it comes to Yambuka politics, he doesn't have any political boundary. He helps you. What he will tell you uh, Councillor, I'm elected to serve people. Anybody who comes here, I will serve you. I've seen instances where he called MPs that are not APRC MPs, and they are living in the municipality. He what I'm doing for my MPs in KMC, I want you people also to be coming to my office and do that. To support them, giving them logistics, giving them fuel, giving them finance, to support them to carry out certain functions that they are doing within their constraints. So Yanko Bakoli is a unique person. Thank you, sir. One among you. Thank you. Thank you. We appreciate it. Thank you. So thank you. nde nde foola ndemi ɗum kanala mbella efle kanala alkatal jimki muto e Yeah, anyway, yeah, hello. You're fine, yeah.

അതുവായപ്പോ മക്കളെ അടമാ സഹായിക്കണം കള്ളം ചോളം അള ഡിമ്പായാലും ഫന അളമാ സലാമു കൊമ്മേനു അള മുസോ കെണ്ടയാട്ട a sɔbɛyaata a kɛ sutura fo ala y'a min diyɔ da o wɔrɔ le duwala ye bɛɛ ani mɔmɔ bɛ n'a jan n'a ka kamera tɔ bakso mau mo sifa di le no, itu ye dow ko kela ya lom mo administrative secretary APRC bureau I'm the head of the bureau is the national mobilizer of the APRC bar bakso ni ke ko nya ko nya ko mo nya sala ko kon minutes anin ah, ya wato men wolu niyen tara kacala kono fon bafulare janna kata woto definitely ko mo kendol ama fata fasilom aman mo mota mo be ayebe kanyande anala konton bolo nana mo mo hani tambila ina so wala woto mo mo rajum yaro ko afa maji afa respect ay buñani ko ko jama KMC ko dañe si lol men kante anen dula jama yang ko ko le ka prestam jambe sambana anaka tara yayo la ka feremo pour ay sala jama do ko ay KMC ado marché ol ko ol to woto jam ko wonde ko wala si ma ahrije e be wala e arjana kallan taw a men bay jang alaw mara ala ala sadamu ko men thank you so much barka ala barka ba so ngalo medde nale jane because uh, saying body oketale already Um, min turaje dron walem kuruka um, sey sain uh, barin badio kerale mol seytale mil be kerin dron sain jam walem duwate ngam mol be tindo ke je baake milieu kerfatu do manum kabo so kono kada fo jame ngodo kana fo uh, badio ko to jam bafla mo be ko ala baraka bake uh, al sen programme mol tenden ka noma ɓe um, karra programme ol mi alon ko wolle natidale kerfatu allah albadima lebnente bouba gaji go ala barka